bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin bu ko defee ñu ñëw ci ñeenteelu bind bi ci sunu téere boobu di muallimu alqiraa bindu tey bi nag dañuy daldi ñëw ci li nga xam ni mooy ijj bi ci boppam maanaam dañu am ay baat yoo xamante ni nii dañ leen di ijj pour mën leen a boole gannaaw ba nga xamante ni nii jàng nañ masque bu njëkk bi te muy alfatxatu maanaam rëdd bi nekk ci kaw te nga xamante ni nii moom mooy amee son wu a bi bu ko defee ñu ñëw ci tadribaat yi maanaam ci exercice yi exercice bu njëkk bi dañu indil ay baat yoo xam ni ñetti araf la maanaam ay mots yoo xam ni trois lettres la bu ko defee ñu war leen boole boole bi nag ni lay tëddee maanaam tudd araf yi benn par benn daldi leen boole ci tuddin wu gaaw bu ko defee ñu tàmbalee ci bi nga xamante ni nii mooy bi njëkk bul fàtte nag ne arab toujours ma ngay tàmbalee ndeyjoor kon bu ñu ñëwee ci bi njëkk mooy da ra sa gis nga ko ñetti araf la da ra sa nga boole ko da ra ñaar yooyu booleen boole mu nekk dara da ra dara bu ko defee nga ajute ci ñetteel bi muy sa da ra kon am nga dara après nga indi sa bu boba kan da ngay am dara sa dara sa gis nga ko dara dara après nga dolli ñetteel bi sa dara sa ñu dem ci baat bi ci top da ra dara ñettel ba moy ja kon nga doli ci ja mu nek dara dara ja dara ja daraja baat ba ca topp ra za qo bu ko defee ñu boole ñaari njëkk yi ra za raza kon am nañ raza ñu dolli ci ñetteel ba muy qo mu nekk raza qo raza qo ba ca topp raza raza ma raza raza ma raza ma baca top ra da ma ra da rada ma rada ma rada ma ra da ف راد رادا ف رادا ف رادا ف baca top za ra a za ra zara a zara a zara a baca top za ra da za ra zara da zara da zara da <clears throat> baca top wa za wa za <clears throat> na wa za na wa za wa za na wa za na wazana ba ca topp wa zara wa za waza ra wazara ba ca topp wa ra da wa ra wara da wara da wara da ba ca topp wa da wada a wa da wada a wada a wada a idem ci benen tamarin tadrib bi ra a fa ra a ra a fa ra a fa ra'afa Baca top ra a sa ra a ra a sa ra a ra a sa ra a sa ra a sa da a da a ba da a da'a ba da'a ba da'a ba za a ra za a za a ra za a za a ra za a ra za a ra cetop a la aka aka la la, aka la, ra ka la ra ka raka la la, raka la, aja top <clears throat> wa ka la wa ka wa ka la wa ka la wakala baca top ra ka a ra ka ka a ka a ka a baca top ra da a ra da a radaa baca top ra fa a rafa a rafa a rafa a baca top ذا با ح ذا با ح ذا با ذا با ح ذا با ح ذا با ح باتي توب دا با غا دا با غا دا با دا با غا دا با غا دا با غا دا با غا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته